yéen a ngi teewlu info 221. mi ngoog ab mbir la boo xam ne daal dina leer nag Ousmane Sonko génne nañ ko ba mu set wicc nag du koo xamante ne dina bokkaat ci élection 2024 euh, yi président Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne raje nañ ko ci ici ci liste électorale yooyee gannaaw ba ñu ko condamné lu jëm ci wàllum contumace ci mbirum affaire yu Sweet Beauté moom leaderu Pastef Ousmane Sonko daal dina nag bañ a dootul mun a présenté wu gannaaw ba nga xamante ne euh, jëwtuñ woon ñëw ca bañ koy àtte ca kanamu chambre criminelle mu daal daan ko ñaari atu kaso yoo xamante ni du ko tëdd ci lu jëm ci corruption de la jeunesse bu ñu sukkandikoo observateur mu ñu jox yi la xibaar di ñu xamal rek ne ci audition ni ki tey ji jëwriñ bu ñu dénk wàllum yoon fii ci Sénégal moo transmettre nag département bu ministre de l' intérieur ay trois semaines yoo xamante ni ñu ngi doon amal liste de personnes ñoo xamante ni dañ leen ne maanaam rek yoom daf leen a teg loxo ñu waroon a perte seen droit civique bokk na ca nag Ousmane Sonko mi ne bi di ñu xamal moom mi bokk na ci ñi nga xam ne du ñu voté Ousmane Sonko dellu siwaat rek ci procédure de notification décision boo xamante ni dafa concerne cour boobee boo xam mi ngi ci en cours waaye tamit conduite sous préfet bu Almadi daanaka ci ab correspondance bu date ñetti fan ci weeru août nag bi ñu weesu jamono jooje commissaire bu jëppal ki nga xamante ni moom en charge lépp lu jëm ci dogalu notification bi en mai la ko dem rek jox ko Ousmane Sonko ma nga xam ne jamono ji ma nga ca prison bu Sébikotane tàmbali waaye retourné woon ci kaw autorité administrative yi buñ sukkandikoo ci xibaar bi source bi lay di ñu xamal ne sous-préfet mënoon na saisir nag administration pénitentiaire ngir mën a transmettre ab notification euh, kii di leader Pastef journal bi desandi ba tey la ca gën a fës bokk na Ousmane Sonko du bokk mu nekk ab euh, même le ngor dond boo xamante ne conseil maire bu Ziguinchor ak depuis ba mu nekk ca Sébikotane ba tey ji greffier bi chef tribunal bu grande instance de Dakar moo daal